salaamaaleykum wa rahmatullah waa daara ji ñoo leen di nuyu di leen ziara bu baax di leen balaax di leen baalu na yàlla def sutura ak tawfeex kaaraange gu sax dàkk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi sharafatil waaw tey lii lañ indi pour joxe pour boroom kër yi nag ñoo lii boroom kër yi ñoo lii de ñoom ñi nga xam ne ni soxna yi dañ leen di nooba nooba nooba nooba ba daanaka rek waaw seen biir yëpp daanaka gonflé na ndax yi nopp bisimilah yi ni faidatun li akli suu'i bii dañuy wax ni njëriñ la ci lekk lu bon maanaam boo lekkee lu bon li ci baax ñu ne mu ngi nii lenn ngi ci li ci baax lekk nga lu bon nga jëfandikoo li yàlla dina dindi loola nopp nañ la def nañ koy pexe ki mbir jox la sa soxna jox la ko nga lekk wala keneen ku mën a doon nga lekk da ngay bind awalan bismillah da bind ayatul kursi yu ñetti yoon waaye ñetti yoon yi muxtalifu sifaati ay bi salaasati anwaain da nga bind kursi bu bu jigéen ak ba ca des ñu ne boo ko bindee noonu boo paree daf ko saafara jël benn xal bu xonq cur fay ko ci naan ko sangu ci naan ko sangu ci naan ko sangu ci ñetti yoon jeex na yàlla dina dindi lépp loo xam ne defoon nañ ko ci noob ak i pexe ba nga lekkoon ko mu indi lay gàllankoor rek i jafe-jafe suñu borom dina ci loola. saaniyan ñaareel bi ñu ne bu fekkee ne da dem ci xew wala ñu jox la lekk ber la nga lekk ba tey mu indi lay jafe-jafe bari waa na ngay dégg nit mu ne man de bi ma demee xewoon diwu sàngam kat dama mel ni koo fa buñ fay xawa def dara manam ko xawa fot wala bo ba legi sama bir bi day metti bo ba legi nangam nangam yu deme non ene da ngay bind inna ladaina ankalan wa jahiman wa taaman za xussatin wa azaban aliman soko bindé ben yon da ngay bind 70 fois juróom-ñaar fukki yon nga koy bind juróom-ñaar fukki yon nga koy bind دايبن ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا حصه وعذابا اليما جوم نيار فك يون غوي بند دانكاي بولك ميوم بري دايبن ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا حصه وعذابا اليما 70 فوا موي 70 مرات nga bolé kok mew bay ma lawanul ma'izi shurban dañ koy nana ah. da nga koy bind soixante-dix fois wut meewu bay def ci naan ko bu soobee yàlla fot beeg njabar laak bët laak lépp dugg na si biir te xam nga ni woon jafe-jafe naanal lii ci kàttanu yàlla mu génnaat bii jox nañ la ay noob ak yi ni mel bindal ayatul kursi ayatul kursi yi ci ñetti façon yi bu njëkk bi da koy bind normal benn ko maas ko sadda ko bi ci topp danga koy tomb rek ba ci toppaat du am dara yàq lay doon su ko defee nga jël xal bu xonq cur fay ko ci daal di koy naan sangu ci naan ko sangu ci naan ko sangu ci ñetti yoon trois jours lay doon jeex na yàlla dina defal jàmm dina defal tawféex ba pare dina dindi loolee nga xam ne defoon nañ ko ci yow muy noob yooyu ñaareel bi bu fekkee da ngaa dem ci xew wala foo mën a dem ñu jox la lekk mu mu jàpp la indi lay jafe-jafe ki gàllankoor bindal inna la day naa ankaalan wa jaximan wa taaman za xustatin wa azaban aliman sabina marat juróom-ñaar fukki yoon soixante dix fois nga boole koog meewu bëy boo ko booleeg meewu naan ko yàlla suñu borom bi dina suturaal ba dindi loole nga xam ne defoon nañ ko wala ay tooke ci sa biir borom bi dina defal tawfeex ci kàttanu yàlla mi dogal leer na ma ñëwaat dañoo wax ni faidatun li akli suu bu fekkee da ngaa lekk lu bon wala ñu nopp la da ngay bind ayatul kursi yi ñetti fa ñetti yoon waaye ñetti façon yi yu bokkul lay doon bañ bind ba bi am maas am sadda am tomb ak bi nga xam ne dafa ay tomb kese ak bi nga xam ne amul dara muy ñetti yooyu nga jël xal bu xonk cuur fay ko ci saafara si naan ko sangu ci naan sangu ci naan ñetti yoon incha allah yàlla dafa la jàmm ci loola ñaareel bi nga dem ci xew ak lu mën a doon ak lekk bu ñu mën a jox ak foo ko mën a lekkee mu daf lay jafe-jafe ki gàllankoor ci sa biir bindal inna la day na ankaalan wa jahiman wa taaman za xusatin wa adaban aliman sabina maratin yaani bi soixante-dix fois nga boole ko meewu bëy naan ko yàlla dina la defal feex ci loolee nga xam te ne mooy gaar ak gàllankoor yi ne sa biir ba tax mu indi lay jafe-jafe ki ni mel. waaw ba tey ba tey am na biñ ñu waxoon ni nañ ko joxe ndax jamono bi fi mu toll nii dëkk bi xaw naa doy waar télé bi tàng na lool waaw te itam nit ñi nga xam ne ni dañuy kortaate rek di korte ku ne ñoo ngi lay di la sànni yëfa ki mbir. ñaari mbir yi laay joxe benn bi ci corte la benn bi ci accident wala ñaari ci accident benn bi ci corte su fekkente ni da nga da ngay tukki nga bañ sa oto wala yow sa bopp nga accident da ngay wut xobi ngeer def ci oto bi baa nga def ko say sa saak yàlla dina la jàmm di nga dem ak jàmm ñëw ak jàmm incha allah xobi ngeer rek bu mu mën a doon baax na boobu mooy ci wàllu accident bi ñaareel bi doomu filaawo boo ko jëlee nga takk ko sa ndégg incha allah doo mu sàcc dante bu oto bi daanoo sax yow da nga mujj ci kàttanu yàlla bu dee ba pexe ñàkk boo oto bi daanoo di nga mucc ci kàttanu yàlla fu mu mën a doon na nekk ci yow rek incha allah ñaareel bi bi ma ciy joxewaat ñaareel bi may joxewaat mooy booy génn sa kër nga ni baa nga ni baa fii ci ndakaaru siin te Thiès mi mara ci diggante bi da nga dem di nga dikk ci kàttanu yàlla dara du la daal waaw bi may joxe ci pour corte bi nag mooy da ngay jël doomu laaj ak gerte bi ñu naan golo <laughs> mooy gerte bu gën a ndaw bi tey am golo boobu ak benn doomu laaj ngay ak dem ci bi rek mu óoloo ko nga takk sa jalan bolom jàlla korte ci yem mënu ci yow dara ci kàttanu yàlla maa la yal yalla yàlla njabot gep ci barki yonent bi ah ben dom laaj ak ben dom gerte mo biñu wax bop golo moy gerte bu ndaw bi gerte bo gisé amna na ñetti façon ba ñent bu kudd tuuti bi ciat mi bop ngay jël ak ben dom laaj ak ben dom kërign nga dem ci oudi bi mu ëwal lako nga tak ko ci ndigg ci carton yalla ko yor koort ak jalaak ñëpp ci yem mënuñu ci yow dara ci carton yalla fek mo ngi ci yow ta tooñoo leen yalla yalla sam def ci turu bu baax inshallah allah ngeen jëf yalla yalla def ci dégg ak top képp ku ko jëfandikoo yàlla na yàlla defalal lu nga gis lu kawee sang jort sant nañ yàlla bu wér di santaat suñuy waajur sant njaboot geeg ñëpp ñoo xam ne ñoo ngi seq ak ñoom mbir mi ñoo leen di ñaanal wér ak sutura yàlla na yàlla def jàmm ak tawfeex wa ma zalika ala allahi bi aziz wa ila maratan uxra insha allah